lillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallama ala majmaci shuunihi wa xaqiiqati kunihi sirrihi sayyidina wa mawlaana muhammadin bahjatil kawni wa diyaa'ihi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 doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del siwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yéen li ñu sofoon ak yéen ci seen xadiisu sabaax ngeen baax koo am àjjuma ju jot ci waxtu wi maa ngi jël siyaat ak yow rekk ci annidaawu taasi wa xamsuun suñu boroom di ci jàngale lu niroog liñ doon jàng ci ñaari dars yi ci wàllu diisoo bala ngaa dugg ci kër ak jàmbur mbaa ngay dugg ci ab néegam sorewuñ ñoom ñaar yàlla ne yaa ayyuha allazina amanu li yasta'zinakum yaa ayyuha allazina amanu liyasta'fikum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum salaasa marratin yaa ngi koy fekk ca suratu nuur aaya 58 li ko tax a moom aaya ji yonantu bi moo yónni benn xale bu ñuy tuddee mudd licc ne ko demal nga xool ma Seyduna Omar fekk waxtu woowa yonent bi yónni ko waxtu sess la mooy diggante une heure ba tusubaar fekk Seyduna Omar a ngi dallu tëdd ci néegam di nelaw amee melokaan woo xam ne bëggul kenn fekk ko fa xale bi nag bi ko yonent bi yónnee rek mu ñëw rek fëgg buntab Seyduna Omar bi fekk muy nelaw Omar yeewu ndeysaanam daal am lu feeñ ci moom lu mu bëggutoon mu feeñ mu ne ko ñëwal nga huyu Seyduna Muhammad moo lay woo sallallahu alayhi wa ne man de njeejuhoon naa waddittu anna allaha naha abna ana wa nisa ana wa xadamana an idduquli alayna fi hadihi saat bi ne man de maa ngi dem di wuyu ji sayiduna muhammad sallallahu alayhi dagg samay nelaw waaye ngéeju woon naa sama boroom daal tere suñuy doom tere suñuy soxna ak suñuy surga ñetti waxtu yi daal bu kenn duggati ci suñuy néeg lu dul dang ñoo diisoo ñoo la waxoon jox la heure ba nga mën a ñëw diisuñu bañ wax na la entrée mooy waxtu wi nga xam ne waxtu fest la ak gannaaw gexe ak gan waxtu julli ma maanaam waxtu fajar mooy heure boobu nga xam ne ñi ngi nodd nodd gu njëkk jëm bi ba ñuy salaatoo mu yóbbu yóbbuwaale suba teel gi sama ba ngay xëyee man daal ñetti waxtu yii bëggoon naa yàlla ci mbaaxam mu dimbale ñu ci ba suñuy doom suñuy soxna suñuy surga duñ dugg bi suñu biir néeg yi lu dul ñoo leen jox ndigal ne dugg leen maa ngi wuyu ji sang bi moom daal départ di ko wuyu ji rek ba mu yegg rek fekk aay ji wàcc yàlla na hey yéen ñi gëm yàlla na leen diisu laa wax na leen diisu ñi nga xam ne yéen leen moom ñi nekk gi seeni surga na leen diisu balaa dugg seen néeg yi xale yi nga xam ne mësoor a guñu ñetti waxtu nag laa may buñ ko dugg ci seeni néeg lu dul ñu diisu leen mooy njëkk ñuy julli julleeg fajar ak waxtu wi nga xam ne yéen ngi def sest ci waxtu une heure jëm ba ba ñuy jullee tusubaar wala gannaaw tusubaar sax heure yooyu jëm ba ca saan tàkkusaan jëm ba gannaaw ba betu tàkkusaan waaye tamit ak waxtu gannaaw buñ jullee gexe ba pare moo tax mu ne yaay wala si na amunu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla li yasta'zinkum na diisu leen di si ne malakan moom na ko aymaanukum seen surga ya dugg mooy seeni mbindaan yi seeni jaam yi ngeen moom ngeen leen jëndoon bala ñoo dugg seeni néeg nañ leen diisu wala si na lam yablughul xuluma ak seen tut tànk yi nga xam ne mësoor a guñ min kum ñu tukkee ko ci seen di seen njaboot nañ leen di diisu salaasa maraati ñetti yoon kañ mu ne min qabli salaatil fajri njëkk juleeg fajar laa wax kenn warta dugg ci néeg baayam mbaa muy dugg ci néeg yaayam xale la bu ndaw damaa fàtte woon sama saag bi bëggoon koo jël mën nga faa fekk loo xam ne mënoo koo nettali waxtu wi nga wàccee école fekk sa baay sa yaay ñu ngi seen néeg def sest mën nga jékki-jékki dugg te waxuñ la entrée mën nga faa fekk loo xam ne mënoo koo nettali gannaaw géexe ñi reer ba fatu fay làmp yi nga dugg sa néeg yaay mbaa nga dugg sa néeg papa man nga faa fekk loo mënta nettali mu ne ñetti waxtu yi daal benn surga warul dugg ci kër njaatigéem néeg njaatigéem benn njaboot warul dugg ci néeg kilifaam lu dul dafa koo diisu ba mu ne ko entré mu door a dugg lii la xomar mbébér rek dem rek yàlla wàcce aay ji même ci kem ñetti waxtu ya moo tax mu ne waxiina tadduuna siyaabakum min zahirati muy ñaar wa min baxdi maanaam salaatil ishaa yi ak gannaaw julli jeexe ñetti waxtu yi man yàlla maa ko tuddee salaasu awraatin ñetti waxtu yi awra la ñetti waxtu lañ yoo xam ne dana fekk nit ki mu soxlawoo boppam foo xam ne bëggul kenn fekk ko fa lu dul koo xam ne dafa defar boppam ba pare ne ko entrée hexil kooka door ji mën a dugg bu dul yooyu rek doo ko bëgg kon nag laysa aleykum wala alayhim junaahun baaduhunna tawaafuuna alaykum baaduhum baadukum ala baadin kazalika yubayinu laahu lakumul ayaati wallahu alimun ñetti waxtu yooya nag ah ku ci nekk dugg sa néeg sa néegu morom ca su ko defee nag gis nga may gu rëy ko yàlla may bëri na lu mbasa yàgg mbébét bu ko waxee rek yàlla wàccee ca aaya loolu lu bëree bëri la lu ko Seydunaa Omar def boo demee ci mu mufassiruun yi dañ lay indil aayaat yu limu yu Omar xam ne mooy addu rek yàlla wàccee aaya dëppoog moom wala mu jël position yonentu bi jël position alquran wàccee ànd ak sayduna Omar lu ko waral Omar dafa nekk rajulan nuuraaniyan nitul leer la nitul leer ñaareel lu mu xalaat rek mu am nitul leer ñaareel foo ko fekk lu mu am nitul leer ñaareel foo ko fekk lu mu addu rek loola am loolu mooy jikkoy Seydina Omar lu mu xalaat mu am lu mu foog mu am lu mu wax tamit mu am moo tax yonentu bi daana toog ba ci kanam mu ne laqad kaana fii ma qablukum xam riwaaya bu ne laqad kaana fii man qablukum min al umami muhaddasuuna fa in yakku fi ummati ahadun fa innahu omaru buxaari yu moo solo hadis bi jëlee ko te hadisu abi hurayra ya ak muslim yonentu bi nee na yéen xeet ya leen jiitu woon amoon na ca ñoom ay nit ñoo xam ne dañ leen daan solo ñu xam waxyul wax yu irsaal moom ab too koy xam mais waxyu ilham loo xam ne yàlla la koy yenkiwal yàlla dana koy jagleel ay awliyaa oom dana koy jagleel ay ahbaabam yàlla nañu ci yàlla boole yonantu bi ne sama xeet wii su fekkee am na ci Omar ibnu Xataab kooka moom la bu ci kenn xamee rek kenn kooka Omar la waaye xeet wi li ci yàlla def ci ay muhaddasuuna yàlla may leen waxyul ilham kenn xamut nu ñu toll ci xeet wi ñoo nga ñëpp nag Seydunaa Omar mooy seen capitaine bi mooy seen kilifa gi lam ca xam tamit kenn xamu ko ca moo tax bi mu xelaatee lii rek dem seeti yonantu bi ba mu demee rek fekk aaya ja wàcc jàngal ko ko Omar ñaareel bi yonantu mos naa jàng ci moom ci kanamam aayaat yi ma bëgg a jàng bu nekk ca tabaarakallaahu suuratul muuminuuna yàlla ne wala qad xalaqnal insaana min sulaalatin min tiin summa ja'alnaahu nutfatan fi qaraarin makiin summa xalaqnaa nutfatan alaqatan fa xalaqnaa alaqatan mudqatan fa xalaqnaa mudqatan izaaman fa kasawnaa al-izaama laxman summa ansha'naahu xalqan aaxara la yàlla la yonent bi wax di ko jàng ba mu xegsi fii ba mu ne aaxara xem ci rek. xamar ne fa tabaarakallaahu asnul xaaliqiina yonent bi ne ko hakaza unsil nii lañ ko wàccee yokk ko ci la bokk kon gis nga ko kon kenn du Seydunaa Omar ñaareel bi keroog prisonnier yañ jàppoon Badar yonent bi u ceeg Aboubacar mu nekko say mbokk lañ dañoo juum laaj leen alal ta baleen mu laaj Seydunaa Omar xalaat mu ne nañ leen rey ñoo jël suñu alal ji saboote ñu yàq suñu diine. tax ñoo tumuraanke fii ci dëkk bi raay rek laa gis mu jëfandikoo xilaatab seyduna abubakar bàyyi fi xilaatab omar yàlla wàcce aaya ja ànd ak omar ci maa kaana li nabiin an yakuna lahu asra xatta yusxina fi l ardi turiduuna arada dunya wallahu yuridu l axirata wallahu azizun xakim lawla kitaab min laahi sabaqa la massakum fii ma axadtum azabun azim lan faal seeti ko ca aaya 67 jëm ba ca aaya 68 boo demee da ko ca fekk ja wàccee rek yonent bi di jooy Aboubacar di jooy Omar fekk leen fa ne waaw yéen lu ngeen di jooy su ma ko mënee ma jooy su ma ko mënul ma jooy jooylu yonent bi ne ko de bu taxutoon nag yërmande yàlla di mu wax ne law laa lawlaa kitaabun llaahi sabaqa la masakum yàlla tëkku nañu ci mbugal lu toll ni saan wi lu toll fi ni xeer wale kon gis nga ko kenn du Omar ci leer kenn du Omar ci may kenn du ci xalaat bu rafet yàllaa ko mayoon xalaatam dafa rafeta rafet ba lu mu wax rek loola yàlla def ko moo tax mos naa fekk soxnaa yonantu bi ku ñuy tuddee Zeynabu bu nga boo fekkee ndeysaan booba ayat ayatul xijaab yi wàcce guñ mooy eh, soxnaa yonantu bi war a hiiru ba nit ñi duñ xegg ci ñoom ba ko Omar fekkee ci melokaan woo xam ne daal tabaarakallaahu ci la sëy na bu ne xam nañ problème melokaan wi Seydunaa Omar fekk ñu yàlla dana ci wàcce aaya indi ñu beneen atte boo xam ne dafa ñuy tëj dootuñ sañaat xegg ci xegg ci ñëpp ñëpp tamit dootuñ sañ a xegg ci ñun moo tax gannaaw si gi rek. xomar dafa dem rek aaya ja wàcc alquran wa ida saaltumuhunna mataan fasaluuna min waraay xijaabin ahsaab aaya 53 bu ngeen leen na laaji laaj seeni bagage yu ngeen moom di ko laaj soxna yonantu laaj leen leen ci gannaaw kiiraay waaye dugg na carax ci biir néeba mu lay seetal say bagaas ba fi jeex tàkk loolu tamit lu lu lu lu lu yaatoo yaatu la kon nag xomara ngoog ak xelaatam bu rafet moo tax yonent bi moo daan wax na yow yàlla yàlla nga dëgërale lislaam ci kenn ci ñaari Omar yi ñaari Omar yooya nag kenn ka mooy Seydina Omar mu rafet xalaat mile nga xam lépp lu mos xalaat bu alquran wàccee rek ànd ca ak moom tabaarakallaahu moo tax kon tamit yàlla nangu na fekk si na Omar waxtu yi awra yu yooyu nga xam ne kenn bëggut maanaam kenn fekk la ci moment booba ci sa bopp fekk na yaa ngi soxla sa bopp kon xomaro goog moo ñu may xéewal gu gi yëpp su ko defee nag kon alquran a ngóog ci mën a yare yàlla ngóog ci mën a yare teg ñu ay takaalif ay toggeel yu màgg yu mel ni julli joxe asaka xoor weeru koor aj màkka ñi foo ne diine loola rekk la mu ne déedéet de fexe nu ñuy dëkkee ci pénc mi dëkkin wu rafet ba kenn du lor kenn loolu lépp dafa bokk ci lislaam daanaka li ma leen di sant ak jullee ko xoor ak joxe asaka yëpp boo ko seetee xëdëf ba ngeen mën a xam ak mbaax guy tax ngeen mën a dëkk ak seen morom ba du ngeen ko lor rek loolu laa ko jublu yooyu yëpp ay wasaa la yu lay mën a yeggale ci mën a def mbaax rek ba mën a dëkk ak nit ñi waaye yooyu yokku dara yàlla. ñi ba ko tamit wàññiwu dara yàlla moo tax kon yàlla indil ñu àtte yooyu ci pénc mi bëgg tamit ñi di koy bàyyi xel ci waxtu yooya tabaarakallaahu te loolu ama am solo la su ko defee nag euh, euh, diifu nit ki bu tëjee buntam tamit lu tax nga bàyyi ko même bu tëjoon bunt ba te yow soxla nga ko ca waxtu wa ngaa war a fëgg bunt ba taxaw ca binti ca ca ca ca biti su ko defee nag présenté wu bu la waxee nga xeg si nga xeg si bu la waxul nga xeg si nag nga retourné wu dem loolu la yàlla bëgg kon alquran na ngoog tabaarakallaahu wax na ne seen jaam yi wax na ko ba pare paree mu ne tamit ñoo xam ne mësoor a guñ mësoor nag ci góor ak ci jigéen dafa am nu kenn ku ne yem jagoo bépp jigéen koo gis mën a gis reegal toogam masuur na képp góor goo gis mu mën a mu mën a gént am lu génn ci moom wala jigéen kooka masuur na waaye tamit tabaarakallaahu dañuy wax ne alaamaatul xam xamsun màndargaay masuur juróom la ñett ya góor ak jigéen a ko bokk ñaar ña kenn ku nekk am boo ci jagoo ñaar ña jigéen a ko jagoo ñett yiñ bokk mooy gént gént muy génn ak ma niyu tëdd ba guddi gént mel ni ngay sëy ni mu walaa balee ci góor nu la walaa balee ci jigéen ñoom ñaar ñëpp ku ci gis loola masoor nga moom la alquran ne wa ida balaga al atfaalu minkumul xuluma fal yastasinoo kama statlachina min qablikum suratu nuur aya su ko defee nag ñetti waxtu yi yàlla digal na ko xale yi ñi di ko diisu comme ni ñi nga xamee ne ni nekk nañ mag mësoor a guñ nañ war a diisoo ci waxtu yépp wala ñoo dugg ci kër jàmbur wala ñoo dugg ci néeg jàmbur waaye xale yu ndaw yi xamaguñ dara ne carax bu ci ñetti waxtu yee bokk de ku ko def de da gis loo xam ne nii doo ko mën a nettali waxtu sest nga ne carax sa néeg baay wala sa sa sa néeg paa sa néeg yaay wala waxtu fajar ne damay fàtte woon sama saak bi damaa bëgg a jàngi wala waxtu wi nga xam ne gannaaw gexe la déedéet nag ah. dee leen diisoo ci waxtu yooya ak yéen mbindaan yi nga xam ne am ngeen accès ci néeg yi mën a accès ci heure bu nekk ñetti waxtu yooyu bokkut ci bala ngaa dugg rek diisooxal kon loolu bi ci njëkk wax naa la ko mooy masóor mooy gént gént góor ak jigéen a ci xam moom la yonantu bi ne rufi al qalamu an thalathatin an naimi xata yastayqasa wa an sabii lu ñu ca teg wax xata yaxtalima wa an il majnuni xata yaqila xadis la bopp abu daawuda xakim ñoo ko génnee beneen bi muy ñaareel ba mooy buluuxu samaani asra jot fukki at ak juróom-ñett muy dix-huit ans loolu bu njëkk ba la woon léegi précoce moo xew abu hanifa loolu la wax boo bihi qaala abu hanifa ci fil xulaam mu ne fukki at ak juróom-ñett bu ko xale bi amee rek mësoor na mu ne bu fekkee nag jigéen la ah, fukki at ak juróom-ñaar la abu abu hanifa wax waaye boo demee ci yeneen riwaaye yi nga xam ne ibnu Wahb bi moom da ko tànn ak ibnu Maajusun dafa ne fukki at ak juróom asbax gërëm na ko ak ibnul arab imaamu Saafi'i ak imaam Ahmad ci boo demee ci mawaahibul jalil boo demee tamit ak xataab yooyu yëpp d'accord nañ ca loola euh, waaye nag euh, fukki at ak juróom sax léeg-léeg nga gis koo xamee ne nii euh, mën na mën na mësoor lu gën a teel loola saaba yi am na ci saaba boo xam ne fukki at rek la ko bàyyam magee su ko defee nag ñi wax ne fukki at ak juróom-ñett muy dix-huit ans duut waxi sànni ñi ngi ko jëlee ci xadisa Bayhaqiyu bi Bayhaqiyu jëlee ci afu ibnu xalaas mu ne abi hurayra laa jëlee mu ne rufi al qalamu an thalathatin an il gulaami xatta yaxtalima fa in lam yaxtalim yakunu ibnu thamaani ashrata mu ne bu mësuurul nag fokk mu xaar ba xam fukki at ak juróom-ñett moo tax kon yenn wax yi di ko wax danga nga xamut fekk na yonantu bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam boo ko jéemee xooyafal rek dee dem safara kenn mënu ki dara ndax yonantu bi yoo xam kenn du ko contesté kon bam ne mësoor mooy man ngaa gént avant ngay xam fukki at ak juróom-ñett bu yéexee ba yéex boo xamee fukki at ak juróom maanaam dañ lay jàppee ngay ko mësoor xadis boobu xadisu abi hurayra la ci la ko jëlee kon ñi wax ne fukki at ak seen wax gi sànniwuñ ko su ko defee tamit noon ngay jël ñi wax ne fukki at ak juróom ama kaw na sinil bulu xam xam sa asrata loolu xadis la bopp buxaari yoog muslim ñoo ko génnee mu bokk ci xadis yi ibnu omar ya mu wax ne gaaral nañ yonantu bi yow ma uhud booba wa ana ibnu arbaa asra sanna falam yu gis nii ñi gaaral ko yow ma xandax ma gaaral ko yow ma xandax booba xam naa fukki at ak juróom mu ne ma mën ngaa dem xam nga ne keroog xareeb Uhud yonumtu bi dafa doon am ñum doon fomm ba mu ñëwee man mii fukki laa xamoon ak ñeent yonumtu bi ne ma doo dem waaye keroog xareeb xandax dafa doon fomm ay nit ba ma ñëwee ma xam fukki at ak juróom yonumtu bi ne ma mën ngaa dem Buxaari yu moo indi hadis bi seete ko ca buntab shahadaat kon foofu tamit ñi wax ne fukki at ak juróom ku ko xam mën nañoo jàpp ne mësoor nga xadis boobu lañ tegtaloo te xadis bi tamit maanaam nii la demee dafa ne maanaam uridtu ala nabii yowma uhudin wa ana ibnu arbaa ashra sanna fa lam yujusnii wa uridtu alayhi yowma alxandax wa ana ibnu xamsa ashra ah, sanna fa ajaasanii buxaari yu kon nag loolu ñuy wax fukki at ak juróom tamit seen wax de foofu lañ ko teg de ñetteel bi góor jigéen bokk ko mooy sax kawaru poqataan ak kawaru naq ku jàpp nañ ne ku mësoor nga ngay góor jàpp nañ ne ku mësoor nga ngay jigéen ñett yi góor a ko bokk mooy gént fukki ak juróom-ñett mbaa fukki at ak juróom-ñaar mbaa fukki at ak juróom mbaa sax kawaru naq ñett yi góor ak jigéen a ko bokk li jigéen bokk nag moom kenn. mooy gis deretu reegal kooku moom jigéen a ko baaxoo jigéen koo gis mu gis ma ma mën a gis garab euh, maanaam euh, euh, deretu reegal rek bu xamee jëkkër kooka mën naa sëy loolu kon jigéen tabaarakallaahu moo ko moo ko jagoo beneen bi mooy ëmb ñaar yi mooy alxaydu wal xamlu ñaar yi jigéen a ko jagoo moo tax yonent bi wax na la yaqbalu llaahu salaata xaaidin illa bi qimaarin jigéen goo xam ne mën naa gis régal gis régal ak julleem yàlla du ko nangu lu dul mu nekk ku muuru foog mu muur boppam ba ndax mësoor na waaye bu fekkee ne nag ah, mësooragut bu ko neexee julli te fekk muurut boppam ba ah ndax julli wér na ko rek waaye wëragut ko waaye nag bu xasee ba xegg foofa nag ah julli war ko wér ko fokk mu muur boppam ba kon wax loolu foofu lañ tegtaloo wax jooju su ko defee nag kon alquran a ngoog di ñu jàngal bu sa doom tollee fii dee ko baxi xel di waxtaan ak moom yéen parent yi di leen waxtaan ak seen doomu jigéen yi jamono ji yàqu dafa bari te ngeen ni ko ñu yore yenn portable yi di dugg ci siid yi di dugg ci lu nekk portable jërul yàkkamte am ko am jëkkër danga am portable bu bëggee woo fokk mu wutal la ko waaye comme duggagoo ci néegam sëy daal yenn yooyu yëpp di leen ko tere seen doom yi. waaye li ko mooy da nga tëj sa néeg bi ba foo ne tëj nga fekk sa doom yaa nga ca Angleterre ca mbedd ya ñi nekk ca Suisse ñi nekk ca Amérique ñi nekk ca France ca digg mbedd ya di dox di tambaambaaluy jokkoo te mënoo ca tus envoyé ma lii ma envoyé la rek su ko defee kon nag yooyu yëpp nañ koy daw bu baax a baax a baax kullukum raa wa kullukum mas'ulun an yi la yonent bi doon jàngale waaye léegi rajo lu duyoos dafa bëri góor yi yàmbar rek bàyyi sa doom yi na nga leen war a yaree na leen war a toppatooxee na nga leen war a baxee xel yooya yëpp defoo ca dara ba xëy xale bi yàqu ci biti nga téye sa gémmañ gi naan xaw ma ca dara te lañ ko sàmmaloo woon yooyu yëpp dafa jar a baxee xel bu baax a baax a baax a baax a baax kon gis nga yàlla kenn du moom ci ci ci mën a yare yonent bi kenn du moom dafa daan wax ne kullukum raa kullukum laa kullukum raa wa mas'ulun an raiyati kullukum raa wa kullukum mas'ulun an raiyati am riwaaya bu ne kullukum raa wa mas'ulun an raiyati fal imaamu raa'in wa huwa mas'ulun an raiyati wa rajulu fi ahlihi raa'in wa huwa mas'ulun an raiyati wal mar'atu fi bayti zawjiha raa'iyatun wa hiya mas'ulatun an raiyatiha wal xaadimu fi maali sayyidihi raa'in wa masulun an raiyati hadis bi muttafaqun alayhi Buxaari yoog muslim yëpp ko andi yonentu bi nee na yéen ñëpp sàmm ngeen kenn ku ci nekk dañ ko laaj lan doon sàmm mu commencé ne ilimaan ji sàmm la bu ne ilimaan ji nag ca jàkka ja bu ne ilimaan ji maire ba ca mairie ba bu ne ilimaan ji ministre bi ca ministère ba bu ne ilimaan ji gouverneur ca gouverneur gouvernance ba bu ne ilimaan ji commissaire ca commissariat ba bu ne ilimaan ji président ci réew ma su ne ilimaan ji xalifa général ci ñam jiite bu ne ilimaan ji ilimaan gi ca jàkka ja jumaa ja yëpp dañ leen laaj mu ngeen doon doxalee la ma leen dénkoon ñi wéet ak yàlla ba mel ñoom rekk la bind gannaaw buñ càmbaree seen digganteeg yàlla ba pare yàlla nag door a càmbar seen digganteeg responsabilité yëpp leen gàccoon moo tax da nga gis koo xam ne dañoo régler diggante moom ak yàllam lépp normal waa ba mu départ nag jëm aljana yàlla ne déedéet waqifuhum innahum mas'ulun ñu dëpp leen nag seet responsabilité yañ leen gàccoon benn par benn ñu koy càmbar ala kulli haal lu ca lu dugut yoon ñu jël loola gàcc ko ki seen kaw jar naa bàyyi xel yonentu bi ne góor gu ne sàmm la ci njabootam yéen borom kër yi dee leen sàmm bu baax di xool xale yi buñ commencé mat góor dee leen xool seen jiin yi lu ne nga ca mën nañ caa bàyyi megooy cigarette yi mën nañ caa bàyyi yàmba dee leen xool seen portable yi mën nañoo dugg ci siit yu bon jigéen ñi tamit di say doom yore seen caag yi rek lënkoo ko na ña ngay jàngi na ñëw rek nga ne ko naa xool saag bi xool la ca biir dana tax nga xam lu bari waaye boo bàyyee rek càmbaruloo xooluloo da xëy rek dara daanu ci sa kaw nga ne xaw ma ko woon te soo ab la ci loo xam ne. xaw ma ko woon du la ca génnee de moo tax yonentu bi ne wa rajulu fi ahlihi raa'in huwa masulun ra'iyyati beneen bi mu ne jigéen ku nekk yàlla teg na la responsabilité yu kawe gi sa néeg jëkkër ki sa kër jëkkër sàmm ko dañ la ko laaj ëllëg de dañ la laaj dépense ba dañ la laaj gan ya nga doon entrée dañ la laaj noo doon doxalee lépp lu ca aju benn par benn nga war koo rendre compte sa diggante sa borom sa jëkkër jaa ngi taxaw moo tax mu ne wal mar'atu fi bayti zawjiha raa'iyatun wa hiya mas'ulatun an raa'iyatiha mu ne xattaa mindaan bi sax surga bi nga yëkkati caabi yi yëkkati responsabilité yenn yi jox ko ko bu yowmal qiyaamee dana rendre compte yàlla ci li nga tegoon ci loxoom nu mu ko doxalee kon nag waxuma la ministre bi waxuma la gouverneur bi waxuma la président bi waxuma la xalifa général bi waxuma la maanaam porte-parole bi ñii la ñëpp bu yowmal qiyaamee danañ rendre compte responsabilité yi nga xam ne askan wee ko yëkkati woon teg ko ci seen loxo benn par benn benn par benn ba loola lépp leer ñu door a mën a mën a mën a dugg jana mbaa safaan ba mën a am moo tax gàddu responsabilité neex na ki ji jamono de dana tax lu la waroon lu bari wàcc la loo waroon a defal sa lu lu bari sa bopp ñu defal la ko mu neex lool nga nekk ci toflaay waaye wallaay loolu boo ko defee nguur bu yowmal wallaahi da nga réccu loo doon juddoo te man maa la ko wax kon nag loolu lépp nañ ci bàyyi xel te lii ma wax la du sama waxi bopp waxi yàlla la wax yonantu bi la muy lu leer naññ te ñoom ñaar ñii duñ dëggal kenn di weddi seen bopp yàlla ku ñor la lu mu wax danaa ko def dana ko def amul lu mu sa wax lu ne danaa ko def te defu ko mukk moo waxoon ne maa leen bind moo ñu bind moo wax ne maa ñu maa leen di wërsëgal moo ñu wërsëgal wax na ne dana leen rey ñu rey na fi suñ bàyyi rey suñ ñii suñ doom yi ñii mu rey suñ maam yi wax na danaa leen dekkil far far fu mu dekkil ñu danañ leen laaj ci seen bàmmeel la ngeen fa doon nekkee ci seen àdduna bi dana ko def danaa dugal ñi safara ñii ma dugal xal jaana danaa leen atte wéet ak ñeem comme yi mu waxoon yëpp ne danaa ko def def na ko yi nekk suñ kanam wax ko te defagul ko tamit dana def lépp bañ na ko ba koy wax ci wàccee sax ci wax ja da koy wàccee wàccuwaay lu mu def ba pare ndax yàlla bokkut ak keneen ku du moom lu mu dële ak lu mu def ba pare ñoo xem képp ndax waxam dara du ci xuute nañ ci bàyyi xel kon suñu doom yi suñuy responsabilité la du ñu yàlla gàcc nañ leen yar jur doom rek bërgal ko yaroo ko jàngaluloo ko kooka mooy jirim donte bàyyee ma ngay dund saacir ba nee na laysal yatiimu man intaha abawaahu waaye nag yatiim dëgg man hammal xayaata wa xallafaahu dalila kookay jirim inal yatiima huwa alladi a talaqa lahu umman a taxallat wa abban masquula mu ne kii rek kay jirim jirim duhut mu ne ku baayam ak yaayam yëpp dee ñu koy tuddee jirim bi baayoo bi déedéet mu ne waaye dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jirim ak baayo mooy koo xam ne baayam ak yaayam yëpp seen soxlaay bopp lañ xittewoo ba soxlaawuñ seen doom yi ci yar leen ci jàngal leen ci def ci ñoom éducation bu baax te loolu moo xew bu góor xëyee takk jiinam du taxal otoom jigéen xëy takk séram gàddoo maanaam asi caagam taxal otoom ñu bàyyi doom ya di xittewoo luñ lekk ñoom ba xitteetu ña war a lekk lekk ga di xittewoo maanaam luy baaxal kër gi te taxitiw ñu war a mujjee kër ga su boobaa nag kër gi bu xamee lañ doon laaj ci xéewal yépp waaye ña ko waroon a jëriñoo ñëpp nekk ñu bon ñu sànku ñu bon ñuy dorogewu su boobaa tamit la nga doon xuti ci biti yëpp li nga yàqule ci biir moo ko xëpp te mënoo koo dabaatalati nit ki amul lu ëpp njabootam te ku am njaboot gu baax ñàkkatoo dara pertoo dara ku yàlla dogal nag nga ñàkk njaboot goo xam ne gu baax la mënatoo maanaam perte nga mënatoo dabaatalati li nga xam ne ni mën nga koo am kon nag nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci jaboot gi ñu yàlla dénk te xam na ci yonent yi dund ba génn àdduna amuñ njaboot sa kër yaa gis nga ko ba muy xam ak njaboot ni yàggee fi mu ñaaneeg fi mu xamee ne rabbi hab lii min ladunka waliyan ba muy déggee innaa nubashiruka bi ghulaamin ëpp na fanweeri at Yaxya moom a far moom sax farut xam njaboot yonentu yàlla Iisaa mu baax mii amul njaboot Ibrahima ba muy am njaboot téeméeri at am ñaar fukk yow ñeent fukki at xamaguloo ko yàlla may lay soxna may la ay doom may la nga mën a xam kër may la dépense yooyu yëpp muy xéewal yoo xam ne na la ko laaj ëllëg su ma la tus allu na yow misaan naimi nga jël xéewal yooya di ko dimbandikoo di ca mooy yàlla di ko dimbandikoo di ca xeex say bokk di ca dimbandikoo di ca def lu bon su ëllëgee billaahi boo taxawee ci sa kanam bonom da nga réccu loo doon juddoo kon yooyu yëpp dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla mun du comme moo lay mujjee yàkkamtiwut dara yàkkamtiwut ci yow dara dafa lay bàyyi rek ngay tëñëx tëñëxi baxe ba ci moom su boobaa nag ci ngay door a xam ci ngay door a xam ci ay nelaw nga nekkoon ci ngay door a xeewu yonent bi dafa daan wax ne nit ñi da nelaw ku dee xeewu annaasu niyaamun iza maatoo intabahu nit ñëpp nelaw ku dee da nga tax ku dem nag nekk ci say nelaw yi caaxaan yii nekk ci connexion bi nekk ci jokkoo bii nekk ci dama laa bëgg a gis nekk ci audience yi nekk ci dugg ak génne bi ba xëy dee xëy nuyu si la billaahi nga nekk fa ne law laa a axartani ila ajalin qaribin fa asadaqa wa akun min asaalihina yàlla ne ne walan yu axira laahu nafsan idaa jaa ajaluha waaye yow yàlla dama may prolongation ma dundaat ba ci kanam kon danaa julli danaa saraxe danaa def lu baax yàlla na de déedéet billaahi mbir mi xas na ñëw jeex na dee rek tey nga fanaan ni bàmmeel de tey nga xendu ju de dara nga ca mënut ñi càmbarloo loo nekkeekoon ci àdduna bi càmbar responsabilité yi ñu tegoon ci sa kaw benn par benn billaahi su boobaa da nga réccu loo doon juddoo maa la ko wax kon nag yaay waay jàngoog noog bi ma génnee woon sorewuñu moo tax benn waxtaan rek laa koy def léegi nag xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi ma dugg yow nag ci juróom benn li fukkeelu yaa ayuha mooy annidaawu sittuun kooku nag mooy yaa ayyuhal lazina aamanu uzkuru nicmatallaahi aleykum iz jaatkum junuudun fa arsalnaa alayhim riixan wa junuudan lam tarawhaa wa kaana llaahu bimaa tacmaluuna basiiraa yaa ayyuha ju gudd gudd gudd gudd la waaye ñu ngi koy fekk ci suuratul Ahzaab ca aaya juróom-ñeent la commencé ba ca aaya ñaar fukk bu ñu yàlla indee ci karatanal yàlla suba ci waxtu wi mooy nekk suñ bopp darsu yàlla na yàlla yóbbu ñu ci. danaa lay wax laxsaab googu lu tax ñu tuddee ko saar wi fu mu wàcc danaa la wax ñaata aaya la danaa la wax ñaata baat la danaa la wax ñaata xaraf la danaa la wax laxsaab saar wi lan la làmboo te mooy kuréeli xéeféer yëpp ñoo xëyoon di sot yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg koo tëggal ndëgg sërëx mboolem kuy xéeféer ci màkkaag la ko wër ak la ko wër yëpp ci jasiratul arab ne nañ dal kaw nañ dal ci kaw kaw yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaju dëkk Perse di Salmaan al Farisi moo ko ci génnee xam naa loolu boo ko bëggee xam suba ci waxtu wi nga may topp ma càmbaral la ko li ci borom xam-xam yi wax ci kartanal yàlla in uridu ila al islaah mastataatu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu ilay unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu